Ness numéro 2 li ngay def yéex na de wala. Ness a ngi wax entraîneur am. Ness a ngoonguy dem ca géew nees ak booy mbeewaan ne ñu ngi passé visite nees ah, waaw nees ñu ngi koy ziar depuis États-Unis nees doomi meer Cekka xanaa yéen a ngi fàttaliku nees mbar mu safoon xorom mën a bëre di doomi jàmm gën ak lamsaar ba si gàmbaaw arbitre a ngi lay laaj laaj ay siisam bu ñuy pare muy soufflé combat bi déet lu xew monsieur le juge awoy ah nees tànkam yi daam suuf oom coow la ñuy bañ coow la ñuy bañ arbitre soufflé na nees numéro 2 ak booy mbeewaan booy mbeewaan nag boo xoolee moo sut nees a ngay déplacé wu aj loxo yi ca kaw waaye nees ni ngaa jël sa léew too bi kawe na de dóor na booy mbeewaan Boy Mbeewane jàpp na ko nee sa ngay jéem a dóor nee sa ngay dóor waaye Boy Mbeewane tamit jàpp lay wër jàpp dëgër na de nees te nga wër bëre wala nees te nga wër bëre nees mobile booy Mbeewane lii mu lay def Boy wan daa jàpp ba pare ndengeñ nees boppaa nga ca kaw gis nga am na lu mu bëgg a tante ci moom de waaye daa diis génn na wàcc bàyyeeku ko de da daan tuur na ko bokkuñu duñu benn duñu benn daan na ko jëli bu rëy oh Cheikh Omar yëkkati na entraîneur ba xamoon na ne bu ko jàppee mu jeex xamoon na ne bu ko jàppee mu jeex waaw genre Reug Reug Bombardier la booy mbeewaana di wër Cheikh Omar nees waaru na nees demal ñibbi demal lam saar ak Boy Mbewaan daan na la ndeysaan nees daan nañ ko jël bu Thank you. get. Get get get get down, down, down, down. rëgg ngi nii toog ak Leyti noonu na ma ñaa ñëw ci Leyti waa mais Leyti Leyti Leyti jaar naa la. yal na yàlla am nga jàmm. sant naa bu baax. sa waay dama ko laaj léegi ne ko sa combat ak Lac de Guiers 2 Jamaïcain ngi koy dox mu ne ma demal nga laaj Leyti. nee na Jamaïcain mu ngi koy dox. ñu ngi déglu Jamaïcain. mais bëggul combat bi damay koy bëgg na combat bi dégg naa. le promoteur au double nationalité. waaw ñu ko koy ñu ngi ko ñu ngi koy déglu waaw. léegi su ñëwee ngir ngir combat boobu. ah combat royal bi de moom la ñuy xaar li taxoon ñu samp ndënd fii keroog. moom ngeen di xaar. moom la ñuy xaar waaw. mais su ngeen amee beneen du ngeen jël. ñun bañu ñu kenn. bañu ngeen kenn. déedéet. bañu ñun bëre la ñuy def lamb lay. bañu ngeen kenn mais kon kon kay xanaa bu parce que roi bi moom kok roi bi boo roi bi actuellement combat ak Tapha Tine la yi wax. waaw waa ñu ngi déglu rek lu neex amateur yi nag neex nañu. mais gars yi combat Modou Lo ak Tapha Tine la ñuy wax actuellement. rëg-rëg ak Lac de waa moom laa dama ne amateur yi ñun da ngay xam ne ñun ay amateur lañ d'abord surtout man mi di wax ak yow yaa ngi dégg kon amateur yi ñoom lañu ñu àndal ñoom lu ñu bëgg ñun moom la ñu bëgg buñ leneen. nañu leen may loolu te xam ne danañ mus a bëgg dëgg dëgg dëgg dëgg diggante gone gi ak Modou Lo bu soobee yàlla. mais yow tey bu ñu la indiloon avance su Lac de Guiers ndax di nga ko jël. déggoo li ma la wax bàyyi ma fi kenn. non Lac de Guiers laa wax léegi. bàyyi ma fi kenn. bàyyi ma fi kenn. xam nga lan moo ma naqari ci lamb li muy doon par 6 mois wala par 1 an. li muy doon par 6 mois. wala par 1 yow da ngaa bëggoon Reug Reug di bëre chaque chaque trois mois. ba pare damay profité. ci sa micro bi laa koy jàllale. parce que boobu ba léegi dama noonu danaa ko wax damaa bëgg ni ñuy gérer roi des arènes bi couronne bi safatul couronne dal déedéet. lan nga wax loolu. damaa bëgg nag mu saf couronne. nu muy safee couronne. li ma bëgg mooy comme am na ñaari génération yu fi nekk na leen promoteurs yi boole tegal leen fee couronne bi. bu leen neexee ñu def ko aller retour aller retour ba mu jeex ki yàlla may ndam ñu jox la couronne bi ñu xam ne kii couronne bi da koo liggéey. maanaam ci même jour lañ koy def wala. même buñ ko deful ci benn jour mun nañ ko def tournoi yoo xam ne yaa ngi dégg jotewul dara ak ni lamb jiy doxee. yow léegi tegal ma say poul yow poul yi kan kan ngay boole. poul yi aw ma lu may des décider ci poul yi. man sama idée joxe rek damaa bëgg maanaam le ministre des sports le nouveau ministre des sports Lat Diop ak le président CNG Bira Sène bu ñu waxtaanee ñoom avec les promoteurs na promoteurs yi même bu dee kenn mënu koo tëgg na promoteurs yi boole seen doole dimbale ñu tëggal ñu tournoi roi des arènes ñu mun a am lu am valeur loo xamante nii maanaam ku ko jëlati du koo xamante ni da daanu fee benn jël dem dajeeg roi des arènes daan jël ko. yow da ngaa jàpp bi ni muy demee daa yomb. waa dafa xaw a yomb. waaw. waaw daa war gën a tàng noonu. Manga 2 fu mu ko jëlee woon kon jeex na ña ko jël ci Manga 2 Tyson mi ko jël ci Manga 2 xam na moom li mu daj doo ko ci Manga 2. mais tey ñi ko yor tamit daa am fu ñu jaar ba ñëw yor ko. waaw mais dafa commencé jegelante. Modou Lo daa am fu mu jaar ba yor ko. dafa commencé jegelante. daa commencé jegelante. est-ce que loolu tekkul ne mbër yi ñoo mën a teelul en 100 pour cent. non damaa bëgg damaa bëgg. roi des arènes ku ko téyeti mbër yëpp am nañ valeur mbër yëpp ay champion yaa ngi dégg. mais dama bëgg ku téye ci roi des arènes bi foo jaar ñu xam ne roi des na nga ne dem. Leyti kontaan ci yow. jaajëf. Leyti seen agent wu Reug moo doon wax noonu. kontaan kooku koy Leyti Sène mais Reug. Reug ak Père Max man de jaaxal na ma. Reug ak Max lu waxtaan. plateau la ko yóbbu plateau la ko yóbbu kaay Lamine Lamine non dinaa laaj Lamine dinaa ko laaj ci loolu nee na li ma li ma interviewé woon Modou Lo Ndiassane la Lamine lu la booleeg Babacar. lamb lamb. non lamb booleeg solo ak noo non ci lamb lañ xamante bu yàgg nag amateur ah amateur. waaye sa digganteeg Babacar dafa mel ni. ñu fowandoo comme ni ma ko mun a waxee. dafa dafa mel ni dafa mel ni comme ni ma ko mun a waxee. booy bo bo ah. daa mel ni ngeen a juddu woon. wallaay lamb ci lamb lañ xamante wallaay waaye yàgg na moo jiitu micro yi. mais waxuma reporter yi waaye képp kuy axlu lamb. ak sa morom war nañoo ñaan yàlla daal def dund diggante Babacar ak Lamine. Leyti journaliste la Siteu maa ngi Naaru Sogas. waaw waaw waaw. pour mois de février date kañ la. 18 boo xam ne bu jógee mbooloo day jóg. ngor jóg am jog yof jog nga genn ci combat ñàkk ko jëlat jëlaat naaru soogaas ban sita lañuy ñuy xaar le 18 février. waaw sita bi lañ gis bu ko raw lañuy lañuy xaar inshallah allah am ci si bu raw sita bi daan ñew moy ñew inshallah allah waaw. ndax sa combat bi nga daano dafa am lu la manqué won ba nga daanu ndax bi nga jëm loolu la manqué won dang ci liggéey. non affaire de jeunesse la won rek waaw affaire de jeunesse la won rek jàpp ne amul daw nañ rayante rek la won ya, waaw. mais ki nga jël ba xam nga yak na naa ay xalé muy naru Sogas. waaw yal na buñ ci bokku ñun. waaw yal na bu yal na bu ñu si yàlla boole. yal nañ ko daan inshallah loolu la ñaan yalla de. ndax ci tabu Ngor xam na luy daan naru Sogas. ak ah, naru entraîneur rek mo ngay daan de ut doole. waaw ak fulak fayda la hadu sa coin ba bëss bi. loolu moy daan naru Euh, tay boo amone message boy lancer waa Ngor ak Wakaam loo leen di wax ak sen supporter pour le 18 février. ñom ñoma gëna paré sax bar sëñ Bamba boo dugal Ngor instant nga nan combat roi des sen la ñuy waajal ñoom ñoo ma gën waaw bu ñëwé ñëwee bi né inshallah dinañ ko dinañ ko yeb suñu côté gise gise fermé suñu côté. Euh, promoteur bi petit loo koy wax sa copain. waaw di ko wax ne na waj rek bo yaa ngi waaw di ko wax na waj bar sëñ Bamba dara du yomb bés waaw noo waaj bu baax a baax waaw ne na gaaw promo bi jot na ko waa na gaaw def promo bi waaw. sa digganteeg rëg-rëg parce que gis naa ne léegi laa gis nga nekkal rëg-rëg da ngeen a bokk wala boole ba ànd bi am. waaw rek sama lépp la sama mbokk la sama lépp waaw mu am yéene si man lool man tamit ma am yéene si moom waaw loolu la quoi waaw ñu bokk di waajandoo lépp di defandoo lépp. waaw di sant grand bi layti waaw lépp waaw maa ngi koy sant bu baax waaw moom bañaluñu dara parce que sëñ Touba bañaluñu dara dara dara waaw luñ bëgg mu taxaw si waaw di ko sant bu baax këram lañ nekk te manqué ñu dara waaw luñ bëgg fekk gis ko fa kon na bu baax a baax waaw sa nekk ak rëg am na lu la jëriñ lu mu yokk ci say sa si maanaam ci sa entrain ci say wala sa doole wala sa xelu bëre wala nangam avant ngay nekk ak moom ndax nekk bi nga nekk ak moom am na lu la yokk waaw yokk na ma lu bare yow xoolal sita bii nii rek ak sita ba nga daan gis rek waaw bu changement amul nga ne di nga ne am na tuuti quoi waaw kon da ngay sant bu baax waaw te des na quoi dañuy gën a liggéey du ñuy waaj di pour naaru kese pour pour luy nekk suñu kanam la ñuy waaj mais du pour naaru kese waaw li nekk suñu kanam la wajj waaj kontaan ci yow waaw bég bégele di sand ak ñepp nak waaw di wax ne waaw ma ngi lancer sama open press le 14 février stade Ngor man ci wo ñepp 14 février open press bi jour jour bëggante bi 14 février bi ma lay invité di invité sa soxna ci damay ñew waaw loolu yaay bañ inshallah loolu boy ñewul ñu méré la dañuy ñew waaw di sand ñepp rawat waaw rawat dina daara sama padaron sama lepp daama koy sand bu baax di ko gërëm waaw ah, mu bu baax a baax ama fayam du ma taay di ko wax waaw ah, lu mu nekk maa ngi si lu mu nekkul nekkuma si maa ngi sant bu baax baax di sant àdduna yëpp waaw di wax ne nañu waaj maa ngi woo ne Ndakaaru ñëpp na fukki penc yeeg ñaari rawatina Ngor Yoff Waxaam Almadi ah, Tarawo maa ngi woo ñëpp di woo Fass Medina Grand Dakar Benn Tali Bisteri maa ngi woo Ndakaaru fukki penc ñëpp maa leen di woo am na solo bég waaw incha allah koo koy si tabu Ngor arbitre baa ngi passé kii fële maa ngi lay bëggee mbaam nga jàmm ah arbitre ngi wax ak ñoom Ndiol ak Ndama baa ngi wax ak ñoom Matar Diouf ay arbitre ak su mbergaan bu suujaan ak Kara Dollé Kara Kara Dollé bi numéro 2 la arbitre su dana combat ba ñu ngay lewtoo Maxim Mbargane ngay lewtoo Max Mbargane ngay lewtoo Maxim Mbargane Maxim Mbargane Max Mbargane Fatma Dia Fatma Dia ci si sama xarit Fatma Dia borom yombal borom yëmbal borom géejawaay. borom géejawaay borom pikin borom réew mi. acca. taal bi suñu Moustapha. xaaral loolu dama koy programmé. loolu affaire lay doon. Dakaractu yëngu na. Ah, yëngal ndànk-ndànk rek. ñu ngi lewtoo. Max Mbergane. ak Kara Dollé numéro 2 ñu ngi leew too na ko njool mi door na ko ndeysaan ñu nga ca de njool ak ndaama la bëre leen bëre leen Baye Balla Mouride waaw waaw yaakaar naa bi wee dóor na ko de gos dal na de moytul kii ni koy songe baaxul dina la dóor nga daanu ah way da koy dóor mu daanu doo moytu waay yow kii am njool la boo koy song da koy jegeñ xanaa kii xamul ne kii am njool la ah waaye Max Mbargane da ko mais Max da non Kara Dollé ko bëgg a. Kara Dollé bëgg a jàpp. njool la. boo koy jàpp danga koy jegeñ. Kara Dollé gat waaye Tidiane Faye Tidiane a koy caraxam Max Mbargane Kara Dollé door na ko Max dooraat na ko droite Max door na ko benn gauche wala droite dóor Kara da koo bëgg a pël bu rafetee pël ñu ngi pël ñu koy dóor pël dinañu rey Kara doole de Max Mbargane dina ko gaañ taxabal na ko mu bañ pël bu rafet waaye yow Kara doole mi yow day forcé Kara mi xamul na forcé baaxul déedéet waaye yow kii Max Mbargane dina ko gaañ tay de laa ilaaha illallah ee eh, yii lii métti na de de ee eh, ee eh, moytul loolu moytul loolu waaw waaw ba mu neex cey loolu jàppante ba tar na de dóor ci faar Kara Dollé dóor na ci faar gi eh taxawal na ko taxawal na ko moytu da lay génne na ko laa ilaha illallah Kara Dollé daan na Max Mbargane waaye lii jël la de arbitre lii ab jël la de arbitre lii jël ah, de xaw ma lu mën a xew mais jël ah. arbitre nee na du jël laa ilaha illallah arbitre bi nee na du jël de mais léegi ci biir la déparé ah way ci biir la déparé daan ko de arbitre nag salamee di terrain waa na du jël di Yo yow yow yow arbitre bi la waaye nag arbitre sala metti terrain waaye man dama doon football la ma ne bit naa ko man. ngay soufflé waat de soufflé waat na combat bi. Max Kara Gane Mbargane Kara Dollé Max Mbargane Kara Dollé man day kii jël na ko daan na ko xoolal lii ko daanee far na ko daan léegi booboo leer nag léegi kon kon nag bi ya leer nag Kara Dollé daan na ko léegi nag Max Mbargane waa bii moom leer na moom bii moom nee na naa pël bu rafet waaye yow tey da ngaa takku ba dëgër pël tey da ngaa ba dëgër. waaw mel ni kay da mel ni xanaa tey Wally Seck da laa woo ca Tëngéej ja yaa war jël yaa war jël say place su Banaya. tey maa jël place su ñaari Banaya yëpp. ah tey. waaw maa jël place xale yi. mais pël lamb ji temps yi coow de. kenn mës a gis nii. Joola ngi mel ni tuleeg man. ci ban côté. côté kii ak kii war a bëre ñi ne Modou Lo Tapha ma laaj la Modou Lo Tapha loo ci gis. dafa ñor xoom. ñor ma dëgg la yàlla bëgg. dafa ñor xoom. dëgg kenn du ko ragal. lenn nag mooy am. mooy acteur bi. na man bëriw ma kii. waaw mais dafa ñor. parce que Modou ak euh, Tapha Tine laaleeguñ. làmb combat jànk bu ñor la. dañoo war laale. Modou nag. defi na ñi nga xamante ne ñoom la fi bëri lool parce que dafa bëgg a may xale yi seen sens ñoom it ñu ñam lii titre roi des arènes moo tax mu roon a Ama Baldé choisir Boy ñaa woon leen ne man du ma magum kenn te man jeexalaguma